asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jawaahirul maani ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baal xaq di leen baalu xaq di sàkku ci yéen itam ngeen baal ñu xaq bu baax a baax di jiital ci nuyoo yi 89 82 ñu ngi kaa nuyu di leen ziyaara di ziyaara itam 30 66 ñu ngi kaa nuyu di ziyaar di jël sunu nuyoo fu mu ziyaara di ko teg ci loxol son excellence tabaarakallaahu mu jot ñu ko mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci majmuu bi yëpp tabaarakallaahu mu mel ni dañu nekk ak Cheikhul Haaji Malick Sy radiyallaahu anhu ci faajati tullaab bi fi nga xam ne fi la ñu yemoon ak moom ci wasifa di dox ba àgg ci jawharatul kamal yooyu la tolloon ci sart yooyu dana tolloon doon ñu ko nettali ak na war doxee muy wax ne nag booy wirdo ba gis ngànt lu jar nga wax may nañ la nga wax gis nga fitna walla nit kuy bëgg loru may nañ la nga wax benn baat walla ñaari baat doo ko romb soo ko rombee sa wirdo dafa yàqu am na ñu ñoo xam ne nag doonte may na la nga waxanteeg ñoom lu mu yàgg-yàgg te yàqul dara ci biir da ba mhm. góor gi nee na wa jawazul kalaama li darura mumtaniun bi xayri darura nee wa jawazu daganal nañu alkalaama wax li darura ngir lor goo xam ne arrivé ni la ci biir wirdo nga nga gis ku muy bëgg a ku muy bëgg dal tabaarakallaahu nga ne ko moytul lor woowu waaye mumtanixun aji terewul a nag wax de xayri ma darus lor amule waaw bu fekkee lool amul benn ngànt amul amuloo droit di wirdo di wax saa boo wirdoo wax sa wirdo dafa yàqu nga ne si waaw luñ la may mu ne daganal ne may nañ la bi kilmatin may nañ la ko aw kilimatayni xaddu an sayqina tijaani niamal xaddu nee na may nañ la benn baat wala ñaari baat la ko seex yemale moo tax mu ne may nañ la bi kilmatin ci benn baat kepp aw ni wala ñaari baat kese kese kese tabaarakallah ba tax na euh, booy wirdo yooyu lañ la may nga wax ko boo demee ci téere tarixa bi nag tabaarakallaahu albahrul madid bu <laughs> téere tariixa sax waaye li may bëgg wax ci nekk wala nga dem ci téere oustaz Cheikh Tidiane Gaye ba oustaz Cheikh Tidiane ba di atijaaniyatul ahmadi wa sunnatul muhammadiya ci ñi nga xam ne tere nañ leen ñu wax wala ñi nga xam ne tere nañ leen suñ ñu leen nuyoo ñu fay da caa bokkoon kuy wirdo kuy lekk ku nekk ci duus kuy zikar kuy jàng alquran kuy sëy kuy nelaw kuy nangam nangam ba mu ay fukki mbir yaakaar na ak juróom yoo xam ne limoon na ko boo demee ci téere yooyu bu la yittelee daa ko fa gis danga ko baax a baax kon may nañ la bi kilimatin aw kilimatayni xaddu daytal nañ ko yemale ko foofa an sayqinaa ñu jëlee ko ci suñu sëriñ atijaani Seydul Xaaji Maalik ne neama amul morom alxaddu day daytal boobu limite boobu nga xam ne Cheikh Seydi Ahmad Tijaani moom la joxe autorisation nee na wa in yakun bil walidi l muxaatab aw sheyqun aw zawjun yu jëpp maa xuutibu wala maa xaatabu kon afan nee na bu fekkee dangay ngay wirde ba mu yàgg sa waajur di waxanteeg yow del tontu ba keroog waajur wa di pare waaye amul droit utul ko soo paree nga jokk wirde wa fa mu yemoon ku doon wirdo la sëriñam di waxanteeg moom bi ko may wirdo mu rabbi ñëw di waxanteeg moom am na droit waxanteeg moom ba keroog sëriñ bay jeexal walla jigéen ji wirdo la jëkkëram ñëw di waxanteeg moom am na droit dagg wirdo waxanteeg jëkkër jër ba keroog jëkkër ja jeexal mu door di jokk wirdo wa nee na way nekku ndegam nekk na kay almuxaatab aji waxante ja wala kañuy waxante bil waalidi ci waajur aw seyxun wala sëriñ aw zawjun wala jëkkër borom kër yi jàpp dees ni leen tontu maa xaatabu fii ak ñi ngee waxante maanaam fii ak ñi ngee waxante kii wir ba kuy da leen war a tontu amul benn limite bu ñu ko yemale nee na haadihi lawaati lil umum wa man yuraaciha fa fi ridal xakim Seykul Haaj Maalik nee na sart yi ma fi wax ñëpp ko war a def fañ ko commencé woon ba fii ñu toll daal ñëpp ci war a taxaw ñëpp ko war a yittewoo pour def ko te mooy ñaar fukki ak ñett yam waxoon ca gannaaw ne salaasatun min baadiha isruuna awaluha ya saaili tabyiina kawnu ladi yulaqinu l azkaara maazuna talqinin biha jihaara foofu ba fii képp taalib yëpp a ko war a def moo tax mu ne xaajal yi daal allawaati mooy sart yi nga xam ne laazimaatun way war lañu way taqoo lañu lil umumi ñël ñëpp képp ku jël tariixa bi rek lii moom mënul ñàkk wa man yuraaxiha képp ku teg sart yooyu defee ko comme nii ñu ko waxee kooku daal bëgg naa nga xam ne fafir dil xakim nekk na ci ngërëmal yàlla mi nga xam ne mooy aji teg mbir fa mu yelloo mi mama daal ca li passé woon yëpp nag mu jokk ca léegi nag dafa ñëw ci yi nga xam ne ku ko def day dagg day dagg ci tarixa bi am na yuñ ci lim nag waaye boo dawalee sa bët ci yenn téere yi danga gis ne du lim fi lim kese kese kese de waaw léeg nga dégg koo xam ne nag dafay bëgg di yem ci ñett yooyu mu lim foofu wala ñeent yooyu mu lim foofu rek bëgg yam foofu foofu déedéet incha allah mun na am daañu la ci mottali yiñ ci teewlu. nee na maa yaqtau lmurida an sayqina iyaaka wala anida nee na yi nga xam ne mooy dagg taalibe bi ci Seex Seydi Ahmad Tijaani maa ngi lay moytuloo ko ak dëgg ak jubadi nee na bokk na ca maa atta ya nga xam ne jëf ya nga xam ne yàqtau dafa dagg almurida taalibe an sayqina ci sunu sëriñ iyaaka maa ngi lay wattandikuloo wala anida ak jubadi ak ak dënge da nga ko baax a baax nga dëgg si yow laay déglu mu ne ziyaaratun wa tarku wal muhaana wal muhaawana wa jamu jaaniban naha mubaayana nee ziyaare ku bokkul ci tariixa bi day dagge jël ko bàyyi day dagge boole ko ak beneen tariixa day dagge xam nga boo xoolee ñett yooyu la indi fii tabaarakallaahu jël booleeg beneen wirdo jël bàyyi ziyaare keneen ku bokkul ci tariixa bi waaye itam bàyyil xel ne di ŋàññi seex walla nga koy noonu walla ngay ñàkk dëggal li mu wax da lay dagg ci tariixa bi kat bàyyil xel ne itam ne di joxe wirdo wi te amuloo ci ndigal day dagge ci tariixa bi bàyyil xel ne yow miy joxe wirdo wi yow mu xaddam bi nga am nga ijaaza di joxe wirdo wi nit ki ñëw ci yow bëgg wirdo wi te gaaruloo ko sart yi xanaa jox ko wirdo wi noonu rek te waxuloo ko benn sart kooku it day dagg ci tariixa bi ak it lépp lu ñu askane seex wala ngay bañ ku la askane ci tariixa ya ngeen lay ndax yow tijaan nga déedéet te wóor na ci tijaan gi nga bokk kooku it neñ day dagg de murtat moom génn nga ci lislaam bu yàgg kooku tabaarakallaahu noonu la demee yooyu nag ah ku ci def benn ci yooyu ñu wax moom bu yeboo nga yees laan ndigal la wala nga seet neen noo ko doxalee moo tax mu ne ziyaaratun ziyaara wa tarku bu fekkee ziyaara jullit ak mbokkam nag maa ngi lay ziyaar comme noonu rek la moom dara nekku ci wa tarku ak jël bàyyi wal muhaawana ak doyadal ko ndax day firi ko rek ndax soo ko doyalee rek bàyyi nga bàyyi ko di wal jamu ak boole ak beneen tariqa jaani ban naha nanga moytu ndik mu bàyyi mu nekk lu ko wal baaqi laa yutlabu gayru qadirin subhaana dil mulki azizil xaadiri nee na wal baaqi way des yi ci sart yi yi ñuy bëgg a wax Cheikhul Hadj Malick ne sàkkuwuñ ko ci lu dul koo xam ne mën na ko ku ko mënul rek sàkkuwuñ ko ci moom lii des ci sart yi nii kooku moom mi ngi aju ci dimension nit ñi rek fa ñu toll ak seen ak teewlu na mu rawantee yooyu moom tabarakallah du génne kenn ci tariixa bi nag moo tax mu ne wal baaqi way des yi ci sart yi laa yutlabu deesu ko sàkko xayru qaadim lu koo xam ne mënees na ko am na ci kàttan pour def ko subhaana dil mulki sell ñeel yàlla mi nga xam ne mooy borom pouvoir al azizi kay aji nag ci nguuram al xaadiri kay aji am kàttan ma nga nekk si yooyu yan mu ne wa suuratul xutwati in xadarta ixdaaruhu wala ixdaaruha fastaxdiran rabixta nee na bu fekkee ne yaa ngi wirdo soo mënee teewlu portele Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Cherif jamono ba ngay wirdo soo ko mënee na ko def waaw soo ko mënee na ko def naa ko baax a baax soo ko mënee na ko def loolu nag dugg na ñëpp mën a portele jëmmi Cheikh Seydi Ahmed Tidiane yi wa suuratu xutwa melokaanu roywaay bi di seex in xadarta ndegam am nga kattan ixdaaruhu teewlu ko ndegam am nga kattan mën kaa teewlu ci sa xel fas tax diran jéem ko teewlu soo ko defee rabix taa da nga bénéfice yow taalibe bi suuratu zaatil cheytina tijaani yaa mubtari istixdaaraha yaa jaani nee na boo mënee teeral jëmmi Cheikh Sidi Ahmed Tijaani yi ay ca bismillah fexeel teewlu ko ndegam mën nga ko nee na suuratu zaati cheytina melekaanu jëmmi sunu sëriñ ba nga ne waaw si mën de wax dëgg yàlla bëgg naa ko waaye nag ni mel ndax fekkewuma jamonoom gisuma photoom gisuma vidéo ah gisuma dara ci téere yi laa jàng léegi nag doo ma ko porté daal ci sama xel ma mën ko netaal ci sama xel wala ma mën ko dessiné sama bopp wóor gi ne déglu ma yaa yàkkamte waaye wax dëgg yàlla loolu maa ngi cee ñëw nag moo tax mu ne suuratu zaati seyxina melekaani jëmmi sunu sëriñ ba atijaani yi yaa mubtagi yow mi nga xam ne yaay jéem a aji yow aji sàkku ji istixdaaraha jéem ko teelu yaa jaani yow aj tooñ ji nga ne ko waaw si walaay dégg mu ne xad kaana abyada naqiyan musraba bi xumratin muctadilan muhazaba nee na cheikh dafa weexoon waaye weexutoon tar ba mel ni kuune weex bu jaxasoo xonq xonq la xonqul ba coy waaye weexul it ba ne ci diggante bi la nekkoon guddutoon ba la culeet waaye itoon nekkutoon tungu ñukku gàtt ba la àggutoon foofu de déedéet kon ku digg doomu la woon dégg xade kaana dëgg-dëgg nekk na moom Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Sërif ab yada nekk ku weex naq yan nekk ku ay kay aji set musraba nekk koo xam ne weex ba dañ ko jaxaseeg bi xumratin ci xonxon xonqul ba ne cooy yi ba mel ni tamaate waaye weexul ba ne tar ba mel ni dégg nga maam dégg nga maam perkaal aji digg doomu la guddul ba ne culeet waaye gàttul ba ne tukuñ muhazzaba mu nekk ku ñu sellal léegi Seexul Hajj Maalik boo xoolee wax na la jëmm ji ni meloon wax la taxawaay bi léegi nag day dem ci xar kanam nga moom seex wa kassa lixyatin bahiya almanzari munawir shaybi jamil almazhari koo koy seex nee na ku sikkim bu tal la yoroon ku taaru ji xooluwaay la waaye it bejjaaw bi dafa leeroon naññ nañ naññ naññ ba nga mën a seetu xaw a mën a seetu ci bejjaaw bi ndax bejjaaw bu leer wóor na kii bejjaaw nit yàlla wóor na kii bejjaaw kuy tudd yàlla la da nga gis ñoo xam ne seen xeeti bejjaaw boo ko gisee damay bindoo daal weex nga daal da lay wóor ni rek mooy loolu day wuteeg bejjaaw kuy tudd yàlla de moo tax mu ne wa kassa lixyatin yi tal jib sikkim la moom Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi bahiyal mandari aji taaru ji xooluwaay la mu nawira say bi ku ñu leeral ji bej jaaw la jamilal masari ji rafet ji feeñu waay la adima haybatin jalil alqadari wa xulwa mantiqin wa sawtin jahwari nee nag ko amoon personnalité la nag ci jëmm ba boo demoon ci néegam boo ne bismillah wattuwul doo mën a siggi xool ko ndax personnalité bi mu yor ku màggoon daraja la ku neexoon kàddu la buy wax kàddu gi doo yàkkamti mu arrêté ndax na muy tëralee kàddu gi te baat bi nag dafa xumboon amutoon rajo amutoon dara waaye bu waxee rek tabaarakallaahu adima haybati ku màggoon jig wegel la mooy ku màggoon personnalité rek la jalil al xadri ku màggoon daraja la waxul wa mantiqin ku neexoon kàddu la wa sawtin ak baat boo xam ne jahwari bu kumb la bu waxee rek nga yëg ne kilifa mooy addu asalaamualeykum rek ku ko tardé rek tardé nga lu neex tasaf xam naa ñu jeexal ca in rafaa sawta fa bil waqaari wa bis sakinati l kalaamu l qaari nee na bu dee ba yëkkati baat itam kàddoom baatam da koy yëkkati ak respect bu mat sëkk sëkk ak dal bu mat sëkk sëkk sëkk amul lenn lu mu ci sorku sorxee amul lenn yi loo xam ne day déranger kii muy waxal wala muy déranger ñi ci mbedd in rafaa ndegam yëkkati na ak sawta baat bi moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sëri fa dana ko yëkkatee bil waqaari ci wegeel wa bi sakinati ak dal ci wal kalaam waxi dana ko am bi sakinati ci dal xaari yow aji jàng ji tabaarakallaahu léegi nag comme jeexal na ci Cheikh mu ne nag am na beneen bu gën a fort boobu degré bu fekkee da ngaa toll ci degré Cheikh rek mën nga teewlu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sëri bu fekkee mën nga fu ko gën a kawe itam dana wax la ku ko gën a kawe kookoy Moustapha sallallahu alayhi wa su ko defee ñu jëm taxaw noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah